waaw alaikum. ñu ngi nuyu presse bi di leen euh, di leen jaajëfal bu baax vraiment di leen di leen remercier ci intérêt bi ngeen jox euh, célébration journée de la femme bi nga xam ni les femmes de Weyel Gëm Gëm euh, te mu nekk mouvement politique boo xam ni maa ko jiite ñoo ko initié mu nekk seen deuxième édition donc tey ay yaay ay doom ay nawle ñoo daje. bokk gis-gis bokk gëm-gëm ci mouvement boo xam ni dañ ci am yaakaar euh, ñu dala ànd nag def na attaque lu teg fii ci Tivaouane élection yële passé locales yi bokkoon nañ ci àndoon ak le président démb Diop si yàlla may ñu ndam ñu continuer nag di wéyal suñu conviction politique ci ànd bi nga xam ni euh, suñu borom moo moom la neex te lim ci namm moo ko xam jigéen ñi nag dañ ñi ñoom chaque le 8 mars dañuy dajé ngir waxtaan ci taxaway bi jigéen wara am ci kër ak ci société loolu mo nekkoon thème bi mais ñu né cette fois-ci duñu yam ci lolu ndax ñom comme dañuy dajé di wéccio xaalis di jàppalante nekk ci ay financement di cotiser lam leen jural dinañ ko woné tay ci ñom ci seen biir am ño xamni ay entrepreneur lañ ñii dañuy def euh, production de savon ñii di def ay gâteau pâtisserie am na ñu nga xam ne ay légumes lay jaay donc ñooñu ñoo ñëw tey euh, wane seen liggéey en tant que femme wane seen jàmbaar opinion bi nga xam ni tey ñëpp euh, ñi ngi déglu jigéen ñi di leen seetaan ñu xamal leen ni tamit am na ay femmes yoo xam ni ñi ngi fii ci Tivaouane bokk ci mouvement Weyal Gëm Gëm ni ñoom it kenn du dem ñu des loolu mooy dayow daje bi tey daanaka tëgguñu wayuñu feccuñu dañoo daje di waxtaan lan moo war a nekk ñun jigéen ñi ñoom jigéen ñi seen responsabilité ci kër yi ak ci biir société bi ñu ñaaxante ku ci nekk ñibbi ku ci ñibbi toppatoo sa yaay ku ci ñibbi toppatoo sa doom ñu bàyyi xel la postérité parce que ëllëg njaboot gi ñoom ñooy defar dëkk bi donc lii mooy li nga xam ni mooy message yi ñu fi weccoo euh, femme woyal gëm-gëm yi ci seen initiative la loolu amee ma leen di gërëm nag di leen sant euh, jiitale tàmbalee ko ci ci ci njiitalu femme bi muy euh, muy Ndiémé Ndiaye moom daanaka moom moo coordonné lépp chance bi ñu am ci mouvement bi mooy ñun mën nañoo toog jigéen ñi def lépp donc fi fi góor am solo jigéen ba nga fay taxaw. ànd bi nag àndu àndu nawle la rek. parce que du alal du lu ma leen dig bu bu weesoo yaakaar xaw ma lan la yaakaar bi nag amuñu ko rek ci man man it dama ko am ci ñoom ànd boo xam ni dama jàpp ne euh, nekk wuute ak ndab lu tilim ndax ku ne loo am yaa ngi ko ciy def daanaka événement bi parce que gis nañ fi politique bari na tey ay leader politique yoo xam ni daanaka. lay xew ci seen biir parti wala mouvement ñoom buñ ko ci deful du am lii ñoom ñëpp ñoom ñoo ko def seen xaalisu bopp la jël financé ko événement bi tey ñoo ñawal seen bopp sol lii ñu nar a tey xéewaloo ñoom ñoo génne seen buñ daan cotiser chaque mois ñu investi dañ ne ma loo ci def baax donc lii mooy sama relation ak ñoom conviction yaakaar jàpp ne dafa am ñun lu ñu pour mën ko Mm. alors ban message nga ñoom jigéen ñi comme jigéen ñi may déglu ñëpp nañu gën a góorlu nañu gën góor góorlu jàppale seen borom kër yi nañu gën a góorlu yokk seen taxawaay ci kër yi nañu gën a góorlu ci njaboot gi nañu gën a góorlu ci société société jigéen moo koy tabax lii mooy message bi perspective yi mooy yaatal yaatal maanaam bëgg nañ quartier bu nekk ñu am fa ñoo xam ni dañuy wuyoo mouvement bi nekkul mouvement boo xam ne nag dañuy forcer nit pour mu bokk ci dañ lay wax rek ñun ci li ñu ne bu la doyee nga ñëw ñu ànd mouvement bi fas naa yéene samp ci yenn département yi nga xam ni moo nekk ci Sénégal parce que am na ñu ñu fa tàllal loxo pour ñu wuy si leen mouvement bi am nay ambition yu dépassé Tivaouane mouvement politique la ñi ñu jité gënu ñu ay ndaw lañ dañu am ambition dañu japp ne war nañu jité Sénégal té loolu am nañ ci yaakaar bu ñu tollé dañ continuer di woyal suñu gëm-gëm. ma ngi nuyu ñepp di nuyu internet yi ñuy sétane di leen ziar di leen jaajëfal di souhaiter bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde plus particulièrement aux femmes du Sénégal. donc di nuyu aussi jigéen ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal mouvement bi di kontaan ci ñoom di leen jaajëfal bu baax a baax a baax euh, ñu nekk ay jigéen yu jàmbaare jigéen yoo xamante ne takku liggéey lañu xam des femmes entrepreneurs des femmes autonomes ñu déggoo di xàccandoo di dóorandoo donc euh, mosuñu politique nag mais góor gi Massamba Boye daf ñu doy ci ay jikkoom ci conviction ak li mu gëm ñu bokk li ñu gëm moo tax ñu ànd ak moom di politique 8 euh, mars nak, li ñu motiver ba nga xamanteni ni féetewuñu ko comme les autres femmes dañu constaté que ni su des folklore nga def teug neex na fecc neex na mais le message ne passera pas mm. et que il faut que ñu véhiculer un message pour que ñi nga xamanteni ni ñuy toog di jigen dégg ko ba ci nekk bo ñibé sa kër mu mën la jariñ donc lool mo ñu motiver ba nga xamanteni ni lañu organiser suñu 8 mars ku ci nekk ci ñun yaa ngi liggéey ci dara yaa ngi ak sa propre entreprise ñii dañuy defar ay diw di defar ay savon ñi ci des légumes la ñuy jaay ñenn ñi ci wàllu pâtisserie la ñuy yëngatu donc waxtaanee loolu ba nga xamante ne dina am ñeneen ñoo xamante ne dinañu roy ci ñoom pour aussi def la même chose am na ci ñoo xamante ne ay couturière lañ peut-être exposé wuñu tey seen ay produits mais bëri na ay femmes yu bëri yu nekk ci suñu biir yoo xamante ne dañuy yëngatu ci dara donc euh, noonu lañu fas yéenee

Euh, dina tax ñu gën a ñaax suñu moroomu jigéen ñi te kuñ ci gis aussi dinañ waxtaan ak yow pour jéem a yaatal ku ci nekk mën cee bokk ndax ku ne xaj na ci macha allah. ku xam jigéen ci euh, Sénégal de façon générale xam nañ ci liggéey waaye euh, benn jour bi ñu ngeen yàq ko pasar pasaree ko ndeyale yi xew yi est-ce te yéen ñi fay jigéen ñi yéen a ngi waxtaan ci lu mel noonu ngeen koy sóoraale. entrepreneuriat da ngay eh, amaana chiffre bi balaa mu ñëw du daw mais bu ñëwee day bëri loolu ngeen est-ce que a waxtaan ngir bañ yàq bi daal pasar pasaree bi. dëgg la bari na ci suñu mbokk jigéen ñi ñoo xamante ne ñoo mën a liggéey 5 ans yàq ko ci benn fan mais yaakaar naa ni jamono bi ñu toll nii jigéen ñu bari ñu ngi waxtaan ci éco euh, éducation financière maanaam waxtaan ak ñi ñu nekkal que yàq baaxul man de sama principal combat mooy wax la ne yàq baaxul. soo liggéeyee utal loo denc ndax xew nag mënta ñàkk parce que dafa bokk ci ñun réalité société bi la mais nag doo ci abusé jël li nga liggéey yëpp nga def ko ci parce que ëllëg a tax te dañoo yor ay njaboot fas yéene leen a jàppale jàppale suñu doom si seen ay éducation ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc may ñaax jigéen ñi rek ñu moytandiku yàq bi tey gën a xool nu ñuy euh, épargner parce que épargne dafa baax aussi épargne moo lay mën a permettre nga réaliser sa yenn projet yi nga xamante ne bëgg nga ko def sans pour autant ngay dépendre ci ay partenaires wala genre yooyu donc on peut épargner euh, pour pouvoir euh, atteindre ses objectifs. fi ñuy tëjee ban message ngay lancer à toutes les femmes. message bi may lancer mooy gëm sa bopp soo gëmee sa bopp xam ki nga doon nga am benn gëm-gëm gëm ni yow jeune nga tu es encore jeune mën nga defal sa bopp mën nga créer sa bopp nga utiliser sa xel nga xalaat yu bëri yaakaar naa ne doo ci dugg et que ñu tondiku aussi di abuser ci réseaux sociaux yi euh, am na ay euh, avantage comme am na ay inconvénients donc nañu xool ci avantage yi c'est-à-dire comme tey par exemple di nga gis benn xale boo xamante ne day jàng école mais am na ay produits yoo xamante ne da koy jaay et c'est à travers les réseaux sociaux la koy jaarale mu jaay ay produits donc loolu avantage sur les réseaux sociaux ici. si si damay exemple dama exemple. a bëgg jaay man même bima école dama un jaay ba voilà donc di kontaan bu baax si dalal bi ñu dalal sha allah euh, di wax rek ni kontaan nañu 8 mars bi neex na sottante nañu xalaat waxtaan nañu di ñaan yalla ñu fekke ko at yu bare bare bare et que 8 mars bu nekk ñu gën ci gis ben soppeeku ci avancement ci suñu côté ak ci suñu mbokk jigen yépp merci beaucoup.